lan la loo may xoole waaw nga dangereuse yow yaa yaa trahir mafia noonu parce que yëpp nga ma de man sa yaa nga ne ma yaa trahir mafia mel yu wuyu ah yow yow prison break ki ko bind moom yaa ko jox idée man mi ñeme nga scénario bu compliqué trop te doy waar yow ku leen ci gi du maa yow lépp luñ doon def dañ ko doon waxtaane ma jékki-jékki gis la nga génn sama coalition dem ànd ak beneen maire bi def seen eh, kii coalition ànd aar seen bopp di kaf mel ni ñaar ñi bokk ndey ak baay dama tiit waaw loolu mu ci ne lu ci nekk waaw gannaaw ay du jàmm man li ma doon def pour aar la la il fallait ma naawal ko jël ko jël mu njëkk jaay ko ji koy bandi xamal ko ne ko kii maa ko jur te maay ndeyam te man raag rek laay def déggoo la ma ko wax yépp ci xoloo ba lii ma ànd ak moom dangaa def dama cee dem ba jeex dama koo cof ndax sa jëkkër laa xamul nu ma koy def moo ñu woo jubboo lañu xam nga rek ma naa bëgg xaalis te xaalis mu génn moom day neex moo tax. day xam nga nooy def. di mel ni rubba. mooy rubba mi doon jàpp doomu buur di ko dàq di ko dàq di ko dàq ba jël doomu buur ne ko cabax ci biir teen bi xanaa ko rubba dugg na. yow yaay dugg nga ni rubba. daanaka da ngay ñibbi tey. yow bu ma ñibbee nga lonku de su ma bu ma ñibbi ñoom ñaar dina lawal ba nga bokk ne tege dege. waaw baax na noon bu ma sori moo ma gënal noon bu ma jege man parce que lami demoon na mi emoon na waaye nag lën lami demoon nenn mi emoo emoo nenn mi du. yow man ngay wax loolu waaw. yaay jógal nga ko Fatou Kiné naan jógal nga ñibbi. fii fii du sa kër de la ko Fatou. waaye moom moo ko yow it. dañ koy sëy si donc bu sa jëkkër moo ne ma meer toogal wéttali ma. dew ma kii dem di fi bàyyi day faal mu lay rey dof bi. ñàkk a naan da nga naan dem di fi bàyyi michu yi. ba ngeen michu duma dem lekkatoo jël lekkatoo ceeb ndawal rek. loolu danga ma cee fekk sa baay loolu la ma tamaloon ba xëy ga dem. gëjoon nga koo lekk. ma yaa mën a fen <laughs> ne ma jox la ko ba bu gis la. barde ci yow jël la tax doon na ma xaw a rey temps yi yaay baar doon la yooyu ak yi bokkut. <laughs> ne ma ci kër gi ak jus orange moom mi ngi koy bi gis ko li muy lekk. yéen a fu mu dugalee <laughs> <laughs> leer nga ma catu lan lan la lu xew. papa. jàmm la ak salaam. waaw kii nii. Hmm. dama koo jàpp muy doxaan. kan moom mi toog. nga dem jàpp ko ci loxo. maa ko déglu ay vocalam léegi nag li ko guddal ak li ko gàttal sama digganteeg moom jeex na tàkk mënatu la dem. defal nag yow daf teel ngaa jël décision ku la jël loo décision et li nga wax sax erreur la yow yaa njëkka a tooñ sax lu tax ngay déglu vocal yi jàmm ah? téléphone jàmbur téléphone jàmbur la amul droit moom déglu say vocal te du loolu ngay jëli décision loolu lu gën ne fi nga naan la yow nu mu demee yow. waaw moom moom dafa comprendre Penda Guissé xam nga moom dëkk fi Casamance ku dëkk Casamance. Penda Guissé sama xarit. sa xarit waaw moom nga doon waxal. waaw moom moom vocal. waaw. moom kooku si ngeen sori la bëgg. waaw ah kooku ngeen doon wax. waaw xaw ma nekkatu fi léegi moom kooku yi par ah mu ni waaw moom mu defee ne nag yow séeri koko nga. pour moom koko séeri koko laa ndek ma koko séeri dañu ma koko yi séeri. ah yu séeri. yu séeri waaw. mu defee ne nga ne koko séeri. koko séeri waaw ah, dégg nga. loolu li lu ëppal teel ma rajo. loolu dëgg laa la wax papa. ah lu dëgg mi ngi nii xale bu jigéen bi ku la ko wax carrément defal ko bijou ni ko maa ngi lay xaar démb doyaluma. da ngaa bijou. te eh, bijou dañu bu ñoree moom bijou lee liir waaye bu ñoree la. xam nga kooku maam ay wax yi kàll la. ah da ngeen doon kàll. kàll mi ngi may aw yaa amala ëgg ba waaw nga ne ko bu ñoree mu defee ne biisu ngoon mu yaakaar ne biisu laa. Hmm, man foofu xaar sax xamoon naa fa ku jaaykatu ko bu tudd biisu ngoone. bis daa biisu ngoone benn. waaw moom mooy yor koko yi. ah moom mooy yor koko yi biisu ngoone. waaw koko yi suñuy yow biisu kooku nga dégg dégg koko nga defee ni lii laa lay wax. comprendre. eh nit day tey lii yàqul diggante bi kii mosuma koo xamee loolu te papaam nee na yëmu ci ba mu la xamee ba tey daa mel ni ko dof xoolul keneen nit du gaaw gaaw jël décision. xam nga li ma la bàyyil bàyyi boobu ngay génn sa gémmiñ continuer leen ngeen am jàmm. dafa xamul rek. d'accord. déedéet. nga ni. ma ni d'accord ma laa wax man kii man maam kii pare naa si moom. kan aw mënoo pare de. waaw. de dafa ndànk rek mbir mi léegi yow dootul sax sa combat. Ah. kii da ngaa mënta pare de. laa lay wax ni man mënuma deux jours yi na ngeen dil ma koo nopp heure ngeen dil ma far mënta ne lii mënta pare de pare boobu nga wax mënta ne. yilifoo sa bopp. man nag pare naa ci xanaa du man maa la ko présenté woon. dama ba nga ma ko présenté laa ko xool gëstu ko xam ne boppam xam ni ko baax la munoo am ku ko gën mosoo am ku ko gën balaa lay wax nii munu la jeex waaw da ngaa erreur waroo déglu sax effort gis nga ku yëddu di nga déglu loo bëggul dégg. bilaay mu ngi dem ba pare sax moom ni mu ko moo baax. waaw biisu ngoone. mooy yor kii waaw waaw mooy yor koko yi waaw. dama mooy bi mu dégg ak kooku seer yi. o kooku kooku seer yi la wax. am ñaari catégorie koko koko la. koko la waaw ko waaw man baax na garaawul. nga ni. maa ci pare. waaw léegi xam nga lu ah yow pare goo xam nga lu may def sax yow sa papa ñëwoon na fi waxtaan ci. Ah, léegi man dinaa accélérer affaire bi def takk gi mu jeex waaw parce que yow kàkkatar nga. man nga maye te ma pare ci relation bi. man relation nga may pare. par force yooyu lañ lay bàyyi yow. nuñ ma ba kii la dig moo tax ngay wax man maa man maa ci pare. lan la ma dig lu ma dig yow lu la neex nga dem bu yeboo nga takk say bagage xam ne dama lay maye yow daal bul wax leen moom moom kii daal dof. papa kii da nga ko xamul luy jeex. xamul lu war a jeex. xamul daal man dama ko bëgg billahi. ma ne ma ni ni nga ko bëggee noonu lañ la koy maye. billahi diggante bi mépp mën naa jeex ba mu des bi kii man day mel ni man lay bëgg a iñaane sax. papa kii kii boo kii bee boo nga xoolaat bu dee am na ay gàllaaj nga takkal. moom moom daf dafa am yaram. parce que ñun parce que ñun ku wóolaranteeg ñun du ko du ko du ko bàyyi de. ah te yow bu ñu nekkee sa goro di nga am lu bari de. ah bu leen bàyyi de am lu muy gis. waaw waaw parce que xam nga rek. waa ci moom lay yem rek. waa ci moom lay yem mais sa teraanga laay wax kay du la ba. waaw fexeel bu ma bàyyi du la fexeel ba bu ma bàyyi dama ni ñun bu moytuwul ñun ñëppay sëy si. ah mu ngi noonu de da nga waaw mu ngi noonu noonu de baax kër gi yëpp sa boo ñëwee sama papa jox leen kër gi. taaru de sama soxna naka ujje gi nag mii na man ni laa bëgg mais warul leen koo seral parce que ujje warul sedd dafa war a tàng dafa war a metti ujje dafa war a war a jaral nga wàcc ci kaw tali bi def marche ñu arrêté ko ñu tere ko nga ni déedéet dangay ngay ñu sànni la lacrymogène xeex am ay bëñ wadd ci mais seen ujje bi vraiment yeneen koy seral bëgguma benn yoon muy sedd nii fu ngeen fekk nit ku ne naan ay ujje boo ko wërsëg laak jëm leen juboo déedéet yéen ni ma bëgg ci yéen mooy ngeen xeex xëppante acide dóorante ay paakaf parce que yéen xam nga leen Mohamed mooy yéen seen seen ujje vraiment seen waxtaan en fait da ngeen seen xuloo yéen comme ay taasukat daal yu rate parce que da taasu mais mënu leen ko su ma la jàppee dinaa la xëpp acide man maa la mën xam nga man ni ma toll damaa gàtt saf mën naa xeex kii ne damaa njool maa la sut maa la mën te mosu xeex dóorantewul leen man li ma bëgg mooy ngeen xeex ba waa koñ bi ñëw parce que bu ngeen wa paree pour weer seen bopp weer leen seen bopp weer seen jëkkër loolu lu am solo la parce que man loolu laa bëgg man personnellement je suis l'homme le plus heureux bu fekkee ujje gi da ngeen di dem jusqu'au bout parce que boobu ba léegi ma ñëw pour atte du ma dem police ku ma faj man dan may woo téléphone ma sa kër a ngi ma ñëw yegg si du ne sa biir nag lay ne il faut ngeen dem jusqu'au parce que il que vraiment li ngeen taxaw pour weer seen bopp ngeen dem ci ba jeex moo tax ci loolu dama leen di may encore temps pour ujj gi ngeen gën koo mën a dund lépp lu jëm ci wàllu togg defar kër gi wàcce naa leen ko mën ngeen toog seen nekk ay gi sax mën ngeen ko bañ a gérer parce que des fois mën naa fanaan ci kaw chambre dalon chambre dame bi comme teel bi ñu tëj wala ma fanaan ci salon bi ci kaw awma ci problème des fois man je peux faire des soirées nocturnes jaru ko togg moom bu leen ko def parce que jël na engagé naa ñaar ñu mag ñu bien ndekete yoo togg balaa neex ndeke mag a ko yëngal ah ñaari ne ci kër gi ñaari jànk yu mag yi. yan jànk. ah soxna Ndeye Fall ak soxna Binta ñi nga xam te damay na engagé fay leen. yow amoo benn respect ah. sama yaay nga naan jànk. Ah, yow sa yaay seen yaay ñooy samay mi nag parce que damay na woo te damaa jël décision war leen a ku ne quarante mille francs mu may toggal parce que musuma lekk lu neexee nii ce sont les vieilles marmites qui font les bons plats toggal nga fi. mu ëpp xorom nga toog ak kaani nga ëpp nga naan te kaani moom ëpp ndax yow problème mu nokkos nga am da ngay jël kaani xeeñ gi ba cee jël douze kaani xeeñ bëgg koo nokkos naan da ngay noo jël la dafa war a saf après jëndi kaani rek la kenn du ko lekk. kaani xeeñ kaani cuqali man laay nokkosee. boo jëlee cuqali cuqali ci deux kilos fu ñu jëm ñun nga cuqali nga ñu ba doon lekk. guu moo tax. yaa bëgg affaire cuqali amul si problème kii yow xamoo yamale dosage te taloo togg parce que mënatoo ko def ndax yow bi nga waree jàng togg bi nga nekkee booy da nga doon wër di xuloo kër gu nga dugg fa di xuloo sa dafa dalaa atte atte atte wax na ma ko bëgg dem nee na moom sax mënu woon tal mu talu la jàngal togg mais talu sax togg wu jëma doon togg ndax yow lay xëy chaque jour am nga koy xuloo moo tax man ne ko li nga raté woon ci togg yëpp di nga ma ko toggal yow benn problème nga am di nga jël place sénégalais au lieu nga togg ni ko sénégalais si di toggee nga yokk dosage problème dosage loo def dosage bi day ëpp fii nga jël ceeb bu weex def ci curcuma naan da ngay doore nan non du ma jël kii doore bi parce que ni ñuy doore yaa fi defee ñuy doore xaw ma la nga jël ci curcuma bi def ko ci ceeb bi rouge nan ma non sama doore bi moo kii curcuma bi curcuma ba curcuma lu mu def ceeb. la. kari laa ko ceeb bu weex nga sóoraale kari. ki ne moom ko wax. non léegi comme nag yooyu yëpp dafa am. te mairie sérieusement parlant dañ may toggal loo xamante ni du ma gêner du ma benn problème parce que damay liggéey wàcc ñëw fekk fi ceeb bu neex. seen ñaari yaay yi pare waxtaan naa ak ñoom naa leen contrat ku ne naa la fay quarante mille nga toog ci kër gi. di ma toggal ma nag yaa ngi effronté sama tante jëlee ma ko saa pour mu ñëw fi nekk sa bonus de lu laa la wax. du kenn. lan moo tax nga da lay jàppale. waaw déglu ma rek déglu ma rek ay dam dañ leen di fay yow lan nga leen di fay bu. leen di fay. te nit liggéey tout tout tout travail mérite salaire dama leen dafay quarante mille francs te du tee man li ma leen di may. nga ne amoo de ma ne dama bind dañ doon bind ma bind leen jànk lañuy togg ci kër gi togg rek la ñuy def defuñu leneen. yéen nag seen néeg mën ngeen koo defar. amul ah, problème léegi léegi da nga ko bind. waaw man moom dinaa ko defaral bagage am moom dina ñibbi. kan moo ñibbi man maa jël décision ñaari maire yi kenn du génn buntu kër gi. ah da ngeen fàtte bi ma leen wax nan génn ñoom ñaar ñëpp kenn du génn un kër gi bala sant te maa ko jënd waxtaan ñoom dèjà waxtaan naa ñoom ñoom ñëpp xamal nañ ma parewuñ sax pour génn xanaa doo ko door mu génn te ñoom dañoo signé ay contrat buñ bëggoon dem sax duñ demee noonu daal noonu la demee de toute façon daal ku ne na xam ni kër gi vraiment. li nga bëggoon pour noppalu am nga ko comme da liggéey mën ngaa liggéey yow aussi kër gi am problème mën ngaa toog sa nekk maire ñu ngi may toggal te li ñuy togg du am bouillon xorom su dóob kaara bi dóob kenn du ci def ay ceeb. Eh, kii soxna Ndeye Fall. Ah, ba daal ba mu ne pëcc daw démb gisaatuma ko. ba mu génnee fii démb ba tey. na ma aayewoon noonu. waaw gisuma ko fanaan si woon. ma di ko woo teg ci boîte vocale laay jot waaye bu ñëwee ba fekk ma fi dina xam ne lépp dëgg la. waaw ba moom lan moo ko dal. moo ma ci jaaxal. yow petit jus bi nga fi joxe dé démb doo nga tax mu da nii. kat la ma waxoon dong laa def. ah waaw mi ngi noonu. waaw waaw. mais ba nag yebaate la de fi mu toll occasion la ci hmm. wutaay pour mën a doxiwaale ay soxlaam di doxaanan toog yooyu noonu man ba man xaw ma nitu lan la. waaye ba ko ba mu yegg si fii. waaw ah, bu ñëwee li jënd ko bu ñëwee du ma <laughs> ay bi mu dem bu ñëwee tey jinn na ma sama ay dama koy. dala koy jox kenn. baa ñaa jox. loolu force la. pour ki jàmm kon yow sëriñ yaa ngi ci Ndeye njaay ba tey. ci la yow Ndeye Ndiaye mi ngi lay cotiser ba léegi ba tey kon. ba tey jii tey la waalo gën a ah yaa ngi ci ay kàmb kon mu ciy dugg ba tey. ban kàmb ban ban kàmb yoo xam nga ni ba moom ba kon Ndeye joxe woon kaasam ba mu yeewoo ju hôpital xam nga booba la gëjoon a gis sax kaas buy naan bay naan ji leen nag naa la ko xamal comme yow sa xel mi nee nga matoo dangaa manqué gis nga kii boo ko toppee boo fi rayee baax kaso bee ngay dem tëdd. Hmm. yaa ngi dégg moom nag mu ne coowu toog fii di def di jibale def lu ko saf lu leer nag laa la wax. yow noppil ba maa la koy loqatil indi la ko ba sa biir néeg munu fa rëy di toog waajal sa lépp dala ma sa dara bu weex taala ma sa cuuraay muy gos-gos yi. foofu ko yàqee ndax ngelaw lee koy xeentu pour lan. <laughs> xam nga moom ay ñaari fanam wéy na bu yàgg. ndax mu xullee ba ban naan lool ñàkk naan lool dem yoonam. la war a xamaax. ba dafa dafa eh, dafa évacué eh, rek de. gis nga bu ñëwee sama ay googu maa koy jël ba mu neex jàppal ni fas wu la raw tey bu subaa boo ko dàqewul dootoo ci jot ndax bii sama bos la. xadi baaba déedéet bu de seen hmm. seen may xam naa ki om da ko teral lu ne déglu ma rek dañ ko ñaan nañ négocier xadi baaba kii dafay dafa renouveler waat affaire mariage déglu ma rek dañuy waxtaan te dafa jël ay feemam yu bees jënd léppam lu bees yaa ngi may dégg Euh, euh, casier intimité moo ko sponsorisé pour ay astuce yu baax ak yu muy kii wax yooyu yaa ngi may dégg boutique gu des store moo ko sponsorisé si ay eh, nuisette ak ay fer ak ay affaire yaa ngi may dégg kon dimbali ma rek bu ko yàqal maa la ma yow bu ba ñëwee foofu day nelaw rek du ma ko lii maa la ko ñaan may ko voilà ba sax duma ko ko may baa xam nga loolu bu yeboo nga funki nga reesal je m'en fous gis nga sa ñaari fan yooyu jeex na mm. leen dem naa la ko xamal du bànni nga ma wëyu nga may wax ngay funki sama kaw noonu man lay neex ma may la ma ñàkk laa waaw ñun dañ laa ñaan léegi dama koo mayut pare nga ñaanuma la bu ko ñaan saraxuma la ok gis nga ba mu neex ko mu naqari ko yow mu neex la mu naqari la ci man la ay tey sama territoire. waaw ndax dem dafa rëcc démb journée ba baaxul. waaw baaxul mais loolu moom la ñàkk xam nga àddina nag ndey njaay xam nga lu ma ci naqari. Mm. koo fi rek mu jëm laa xam nga yow da nga toog célibataire ba am cinquante cinq ans. dégg nga li ndeysaan. ñëw dugg si ndeysaan fexe ba nax ba dugg si ñëw toog pour sa xarit man quinze ans ma am ko dugg ci loxo ba. Ah, neel nga ñëw mu jaral la lu ne ci àddina ba nga war sa xarit ñëw dugg. waaw mm. yow a ëmbal nga dugg kay. Ah, ah, amul problème man bañ may quinze ans la am pare takk ma. Eh. waruma sama ma waruma kenn. Mm, mm. kii de waruma kenn yow nga am. 55 ans war sax bu may bëgg a dee nga romb ma bëgg ma romb ko mu naan ma ay tatasen bu ma nekk la man bu ma kenn yóbbu retraite anticipée. kii xale bu ndaw la sama ay. mu neex la bu naqari la dama koy jël a la rombee ma ko waxee ndax ndax may tojal bu ko kii waxoon sax bu tane ndax kii xale la. waaw man moom moom waaye yow mii nga dem bëgg man samay yaay ma kañ damaa fekke ah. maa fekk la police. waaye yow fekke bi ba ma ne la ko tata sën da nga koo fekke. fekke ma ko mais moo ko nettali. sën ba ma rombaatee dinaa ne maam sën ba xam lan ngeen ci mën a. xam nga booba lu la jàppee ku ridicule ren ndeysaan bëgg a delluwaat xale te mënu koo doon. Ah. yow de ne booba soloo xam wala man maay mag. yow gën loolu nag yow lan la nag affaire de wujje dugal nag xadi baa baal kii nag. dara ah. safuma ci. waaw ma sol yi ma maasel waaye nga la doom dimbali ma rek bu ma tojal. waaw bu mu la tojal maguma la yàgg sama yaay maa ko woon ba mu neex boo ma ko waxee ay ree damay jàpp. yow ay ko ba ñëw toog fii di ko. du ma taxaw sax nag may yaay kii du ma xuloo moom may dama ko ñaan ba pare. waaye na ba ne salaamaaleykum ci kër gi waaye pare nga looloo hmm. na xam ne je retiens nga fi de bu boobaa bis bi romb na la man dafa nekk ah! xale bi tooga maa la wóolu man tooga sama égérie maa la wóolu yow xam nga ne koo digal mu dem kaso ba dama lay mus de ñii hmm. da ci am solo man ma léegi ñaar yoon laa jël dessert nga jël dessert avant ngay añ boo añee ba pare non sax ñett la da ngay dem ba ngoon ngeen laal beneen dessert bu bu saf waaw c'est bien te laal nga pomme ak banaan da ngeen def ngeen dem à ngeen def da ngeen daanu seen budget daan daanu yow xam nga sa jëkkër lu mu bëgg ba léegi. nga man banaan aayu ma ci woon waaye. pop nga bëgg noonu. waaw moo noonu sama préférence li nga bëgg sa jëkkër bëgg. j'adore la pomme verte. pour banaan laa sentir tey te banaan ngay lekk mu lay neex mu lay naqati. la da nga xool li xool kon ma xool banaan la ba xam sax na. ok. te day mooy njëkk lekk de. ci mhm. fi de noonu la mel laa tiit. di mhm. leen takkal kii. nga xam ne banaan la fii. yow koy wutee banaan dama koy indaale. kaay mu présenté nag sama astuce loolu laa jus naturel bu laa tuddee bu. bu nga tuddee fii. xoolal waaw waxal rek suukar dafa ëpp bu de kii de mooy kii ne sans sucre ajouté. zéro mais yow xanaa da nga am ay fruits say fruits bopp da nga am tool. <laughs> sa gré yi laa jël yow say gré bay ko mu jeeb bi nekk yi bu rek la ma sax dama koy defal sama xeeb nekk ci mu ne jus bu tuddee tuddee ko bu. jus bu woo ngi nii. yow nga ne ay gré nga jël. <laughs> Eh, arrêté yow arrêté di répéter certaines choses. nga ëppal yow. yow boo ñëwee bul soxor tamit sagu. damay ah. ñam rek nag damay ñam rek. boo ñamee aussi il faut être honnête nga wax ne saful suukar. oui ma day doon de jël ko. ma ah. hmm. ah. lay ko bëggee. tante na def nii la nag. ah tey kontaan naa de. Hmm. macha allah ah. nii la. gannaaw ay jàmm. man de nga suukar. mu neex. Hmm. nii ngeen def nii nii la ki joxe pomme ki joxe orange lii toj. ñu ngi may bëgg man daal fi mu toll nii xam nga tante lan la. gros bébé. chaque de minutes ñu àndal ma dessert. mooy yoon ci jus waaw mooy yoon buñ ko deful xam. ah seen dëkk dafa baax daf leen a bëgg. ku baax la ku leen bëgg la yéene na leen yéen ñëpp. bëgg naa leen ah waaw mi ngi noonu. bëgg naa leen te dafa jafe ci góor de góor bëgg ak a jafe ah waaw sama ceeb bi tey. laay laay lallaay. Eh, démb rek laa ceeb de. maman sama yaay man liggéey naa nday. Eh. xam nga boo liggéeyul nday yenn ceeb bi doo ko lekk ci waaw ah, maman soos boobu ma ne woon ci kaw ceeb soos lan la. Eh, parce que man soos boobu bi ma. loolu kumpa laa ko tudde. soosu kumpa waaw. mais maman soosu kumpa boobu xam nga lu ma ci def. Hmm. def naa ci soixante mille boo def ak say quarante mille eh, salaire. du ma ko ko laal. da nga naa ko ci kumpa gi. ki ne bari ki dem toog nga fi ceeb waaw xaw ma nu mu mel noonu dindi nga yàpp ko baxal ko boole ko jip mu jox jaxasoo. ah dee leen seet ceeb nga ceeb. ci rusi ba la. Mhm. mooy ceeb déglu leen fii li muy wax yow mi barki dem togg fi ceeb mu cooke xam nga mairie lu seen problème ñi xale yi xam nga luy problème ba lan moo ni cooke ba waaw tey baa suusut mu yëngal ko su nga ceeb cëru si baag baaral ba man lu ma la ci ceeb rek bay boo fay ko bor di leen togg lu neex di ko booleeg lii mm-hmm. seen njëkk di ti leneen ci yéen doong lay yàpp man ne nii kontaan naa ci moom ah, ah. samay doom la ñu fa ma leen di digal ah booy togg ceeb din caa gii moom nga koy rusee nga ni laaj laa xet nga jóg xëy la may ceeb ah man da la ngay ceeb amul fenn. lan xoolal toog ma benn bouillon de. lenn moom li ma neex ci yow. géej bi saa rek laay toog yow ak sama temps binte. ah ñun ay mag la. non yéen da du ma sentir benn bouillon. ñu koy doyee dañ di mag. yéen daal bu weesoo xorom ak ak. géej gi géej gi bu bu wow. nga laxas géej gi bisaab bu tooy. ceeb ba te seen ceeb mooy dàq ceeb yeneen yi. ah dañuy seen morom ñu ay mag. ceeb ah, mag la ñuy toog non non vous êtes grave. ah vous êtes grave. xanaa li ma naa nii nay ceeb yi neex ji bi génn yéen bi yéen a ko laal bu kenn laal jeex na kenn du laal ñoo géré xam nga banana moom ñoo géré ah amina ah ki ne mm-hmm. <laughs> ma daal kontaan naa <laughs> <laughs> amina damaa war a génn ci kanam sa garaamu bu rose ba bu orange bi laay wax bu orange ba nga soloon keroog boobu dama ko jox ma ma dem te ñëw ah, kon ba tey <laughs> man naa ne eh maa ngi ci biir. kon baax na tànn ci kanam. lii mooy nan la nit di taxawee di waasay jabar yow moo wax nga di ko si jàppale yow. waaw su ñu kii seen tànn la nit ki ma jàppale seen sama yaayu sama yaayu jabar. yow ndeke da nga foo yow. mu ne nga bu ne ma saxal leen ma te bàyyi ngeen def ki ma naan après ngay comprendre. banaana bi fi jógee xam pom